voilà économie euh, altine bu jot ak euh, euh, suñu xarit Maymuna mi ci pes yu rafet yi waaye nee na tey pesul dafa tas ah ma doone ko dafa pellal ah dafa pellal karawam plutôt ah, ah tey moom pesoo moom. waaw pesu ma xam tey tas sa greffage. waaw dama tas. waaw ma nii laa ko bëggee bëgg naa xale bu jigéen buy wax di tas greffage kom comme comme ni ah Madou di def. waaw moo tax buy wax day tas. waaw man nii laa bëgg Madou waxal ma xool. <laughs> waaw bëgg naa koy wax di tas de. <laughs> moo tax chaque lundi su ma ñëwee rek may la ci benn. <laughs> neexu eh, la <laughs> neex na ma kay ah, ah li xale naan safu la <laughs> waaw voilà safu la <laughs> wala saf na ca ab safu ca Pape Cheikh bàyyi saf na ca xam nga suñu waa kër nee nañ ma Pape Cheikh yàq na ne léegi da ngaa ngéwale waaw foofu la lu amul ngéwél baaxul ay mbir moom balaa saf ngéwéle mais mun a tey euh, nee nga da nga ñuy euh, waxtaanee euh, ci réew mi ci bilan bi nga xamee ni def nañu ko côté économie donc ci deux ans yi réew mi dox na defe naa te sénégalais yaa ngi koy rafetlu mais loo ñu indil tey précisément ci koom bi voilà Pape Cheikh ma ko junjee woon tey si suba Macky Sall dafa def euh, deux ans si nguuru Sénégal. Mhm. deux ans yoo xamante ni nag ñii ñu ngi naan liggéey nañ ñii naan liggéeyuñ. Mhm. moom nag mu ngi bëgg yóbbu Sénégal si yoonu yokkute maanaam def ko pays émergent mais tubaab dafa ni euh, l' émergence ça se pa pas ça s'acquiert. je pense que nag ñoom ils très bien compris. Mhm. ba tax na ñu ngi ciy liggéey am na nag ay ponk yoo xamante ni matal nañ ko mais am na yoo xam tamit mataluñ ko léegi nag ci kaw loolu lañ demoon seeti koo xam-xamam dafa jëm ci wàllum koom muy may sa baabu di économiste moom nag indil nañu ci ay reet leeral wax ñu si wàllum économie Sénégal nan la comporté woo ci deux ans yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy yore duñ def lu dul euh, seetaan ko dellu si waat si plateau yeewu leen bi 25 mars 2012 25 mars 2014 Macky Sall def ñaari at ci nguuru Sénégal ñi seen xam-xam wàll jëm ci koom-koom gis ni moo ne am na ay yokkute li des itam bëri na. li nga xam ne jàpp nañ ne ñoom def nañ ko ci social social boobu mooy bourse yi ñu ne dañ koy joxe ma fàttali ne mooy cent mille yi ñuy joxe wante nag dañ ko dagg ñetti weer yu ne ñu jox la juróomi junni ma jàpp ci ne dégg yoxo nañ ne sax yokk nañ salaire. ak tey lii ñu def ci dispensaire pour xale yi même li ñu wàññi ci diwlin bi ak ceeb bi yooyu dafay yoo xam ne nii mënuñ ko bañ tudd wante askan wi day wax xem nañ ko bu dee am na lu des itam nguur gi am na ay jéego yu mag yu mu def jëmale ko ci koom-koomu réew mi man nangu naa couverture médicale universelle bi mais na fekk ñu mën ko ndax senegal mën naa faj nit ñi ndax am na xaalis bu muy jox ci def ci bourse nii ñu def ci location bi waxtaan mën na gën a continuer mën na gën a baax parce que en fait leerul ci boppu ñu baree bare bare bëri te état su demee bay jël loi dafa war a fekk ñu raxas ba mu set ñu teg. ñun bala ñu mën na wax ne lii moo gën dafa am ñaari nattukaay yu ñu bu njëkk bi dañuy wax jeexital ci économie muy impact économique bi ci def ñu ne jeexital ci nit ki muy impact social tey soo jëloon bourse boobu ma la wax noonu. nan la mën a am jeexital ci nit juróomi junni ñetti weer yorul étudiant ba yor famille foofu lay waxee dama ne su fekkente ne dafa ñoo yëkkati lu baax nañ ci waxtaan ba xam ne lii suñ ko defee nii dana dana baax nii augmentation salaire da ngaa dégg dox ci mbedd ba dégg nit wax ko donc ma jàpp ne 29 milliards lañ ca def soo ko divisé woon tey mu nekk mil 3000 francs par mois donte junni la par mois ci nit mais duñ ko yëg gis naa ci certes benn lu ma neex muy agro business bi loolu neex na ma. moo ne ci ñaari at yi koppar yi dugg Sénégal bëri na. sur le plan de la gestion gis naa ne ñi ngi leb xaalis bëri loolu nag jëmul ci dund loolu dafa jëm ci li nga xam ne nag léegi mooy li nga xam ne ay projet am la. projet yi kese du yoonu développement teg tali def pont grand théâtre ak leneen loolu du développement dafa bokk nag ci ay uti de développement léegi nag développement leneen la. maanaam da ngay dem ci mbay mi def benn chaîne bu rëy dem ci culture tey ñi théâtre est-ce que ñi dañ ci gis seen bopp nga defal leen programme artisanat bi ndax développement inclusif maanaam fekk euh, euh, mbir mi du ñun ñoo koy defal suñu bopp mu dellusi ci ñun ñu am njëgam du am njëriñ loolu kon à la base soo fekkente ne ngaa yor réew mu ndóol 70 pour cent de ruraux presque cinquante pour cent 45 pour cent à 50 pour cent de pauvres de pauvres dafa ak ak 60 euh, à 62 pour cent de jeunes dafa am nooy lale sa politique. ci tënk muy mel ni koomu réew mi liggéey bi ci desaat bëri na. Macky Sall la fi jëlee Abdoulaye Wade du tali bu rëy nekkoon mu da toog fi PSE mooy seen programme bu bees bii mooy commencement bi kon ñaari at yëpp dañ doon xalaat di xalaat ñaari at ci juróom nag mu dese la ñett soo ne bisimilah maa ngi doog ko door ragal naa soo fondement doo ko eggale wax ji defe naa leer na de. leer na voilà professeur euh, Meissa Babou di professeur euh, économie fee si FASEG koy remercier bu baax si mhm. euh, leeral yooyu nga xamante ni indil nañu ko. Mhm. Pape juste ma fàttali yi li nga xamante ni Macky Sall jot na ko def si deux ans yi. Mhm. parce que gis nañ ni que njëgu dund gi nga xamante ne waxoon na dina si jóg. wàññi na ko bu baax. ak li nga xamante ni mooy homologation des denrées de première nécessité. en plus tamit defaraat na li nga xamante ni ni dañ ko doon def si salarié yi wàññi nañ ko mhm. Mhm. en plus euh, réforme douanière tamit mu ngi en cours pareegul mais ñu ngi ci mhm. euh, indi na tamit loo xamante ni day jàppale nit ñi pour ñu mën a accéder facilement au prêt lu ci mel ni fonds 6 ak FONGIP. Euh, indi na tamit li nga xamante ni mooy acte trois de la décentralisation nga xamante ni day tax collectivité locale yi am euh, une certaine autonomie par rapport à leurs décision ba pare ñu mën a jëlal seen bopp yenn décision majeures yi par rapport ak seen terroir. Mhm. Euh, liñ ci war a indiwaat aussi si domaine santé bi am na kii couverture médicale universelle bi. Mhm. ak 5000 emplois yi nga xamante ni def na ko pour jeunes en fait lu ma bëggoon yokk rek comme leeral mooy ni que économie c'est directement naan politique économique et sociale parce que mhm. aboutissement économie euh, aboutissement acte économique mooy ni que nit ki am bien-être te bien-être bi mooy social léegi nag si biir ponk mhm. yooyu am na yoo xamante ni des na mhm. parce que par exemple euh, problème mu mbay bi ba tey dafa xal di des en plus euh, arachide bi nga xamante ni kilogramme bi da doon jar avant muy yéeg si nguur gi cent quatre-vingt-dix francs léegi deux cent francs la lay jar ba pare nag entreprise yu bëri ñu ngi tëj bien vrai que am na yu di ubbi mais Macky Sall bi mu nekkee ci nguur gi ba tey 400 entreprises tëj nañu donc tamit loolu nekk na loo xamante ni si bilan am la nekk aussi juste euh, rappeler que moom dafa am benn politique na boo xamante ni mu ngi koy def mooy ni que wàññi li nga xam ne mooy dépense budgétaire yi maanaam nguur gi euh, seen budget ñu mën ko maîtriser nga xamante ni déficit budgétaire du am mm-hmm. ñu bëri na ñu ngi naan le fait que mu wàññi dépense budgétaire yooyu dafay euh, Euh, waa dafay euh, dem directement ci ñi nga xamante ni dañ doon liggéeyal nguur gi mhm. parce que tey soo su fekkee nguur gi da doon def ay appel d'offre wala mu doon liggéeyloo yenn entreprise mhm. yooyu noonu ñu wàññi ko après suñu demee ba si biir mun na impacter ci li nga xamante ni mooy emploi privé yi mhm. donc dafa nekk daal une problème euh, une problématique boo xamante ni dafay toucher toutes les couches de la population sénégalaise donc euh, en grosso modo lool nag mooy bilan Macky ku nekk nag sa fi nga toogee yaa xam nan nga ko yëgee. Mhm. est-ce que c'est positif ou c'est pas positif. voilà léegi nag dama bëgg rek comme tey. Euh, dañuy waxtaanee bilan bi dañuy def comme si yow Bijou yaay représenté jeunes yi kii mooy euh, ma xool yaay représenté góor ñi kii mooy représenté jigéen ñi yow Pape Cheikh yow yaay porte parole du gouvernement comme yow wax rek ngay def waa tubaarkàlla sant yàlla sant xam nga euh, dëgg dëgg nag réew mi moom ku ne xam na ni ñu ngi ci yoonu yokkute rek mm, yoonu yokkute la ñu wax di donc yoon la rek mm-hmm. yoon nag lu ne ngi ci ci biir yoon bi ngay liggéey mm-hmm. ngay tabax ci ngay defar mm-hmm. ah, dara dara dara dara xëyul sotti waaw moo tax ñu ne yoonu yokkute nag Sénégal bu émergent la ñu wax nag dëgg dëgg ah jotaguñ ci kaas bi waaye ñu ngi ci yoon bi nag waaye mënoo mënuñu fu ñu toll rek ngeen naan kaas bi lañ ñu a jox kaas bi la ñu war a defal ñu ngi koy ñu ngi ci yoon bi kay dem ji di dem jëli kaas bi loolu yoonu yokkute moo tax ma ni la <laughs> l'émergence ñun tam kuñ ci bëmbax ñu jël di yow sa parti du <laughs> eh, ci la bokk <laughs> mais mais mais en fait ku si hmm. nekk nan nga gisee en fait euh, dund bi en fait mooy bourse familiale yi nga xam ne moom lay jox un petit peu partout au Sénégal. je pense que c'est cinquante mille bourses actuellement. Mm-hmm. cent mille la mais cent yi dañ ko dagg sur trois mois. voilà trois mois yi ku nekk vingt cinq mille. mais pourtant nag économiste bi bii wax na ci parce que nee na euh, koo xamante ni dafa nekk ci problème nga jox ko vingt cinq ah. mais je pense que bu fekkee da nga nekk ci problème nga am zéro. Mhm. ah ak nga nekk ci problème ñu jox la vingt cinq mille même si du régler problème bi yëpp dina régler benn partie bi li may déplorer rek juste juste mooy par exemple parfois dañuy wax wax dañuy yokk euh, Euh, inscription bi à l'université mhm. vois parfois am na étudiant yoo xam ne man j'ai un étudiant boo xam euh, frère dafa ma doon expliquer que vacances bu jotee sax du mën dem mhm. am xaalis bu muy passé pour dem je veux dire donc étudiant bu mel noonu su fekkee da nga bëgg a yokk euh, inscription bi ça veut dire que moom day génn école bi littéralement mhm, parce que du amati lu muy fayee je pense que bourse familiale bi man j'adore loolu même si vingt cinq mille c'est très ñu assuré ko. Mhm. ba nga xam ne bu ñuy jàng dañ ci ànd xel bu dal daal. ku ne soxla na xaalis de fi mu moo tax gars yi di xëccoo téléphone bi. Ah. aussi d'accord mais xam nga <coughs> ci bourse sociale yooyu dëgg la def bi c'est un fait et c'est à saluer. Mm. mais moom économiste bi lu mu ci jàngat dafa ne que def baax na mais il faudrait que li ngay def mu am impact ci nit ki. Mm-hmm. parce que tey dafa jël euh, benn exemple bu ndaw rek mu ne kuy yalwaan nga yëkkati juróom jox ko. yow yàq nga sa juróom te yow juróom boobu moom yokkalu ko dara xam nga genre tey bu dee dañ si waxtaan rek vingt cinq mille sax c'est quelque chose mais tey buñ nee na moom buñ jëloon fonds yooyu noonu mhm. dugal ko ci loo xamante ni nit yi dañ siy liggéey comme nu mu wax rek salaire yi xam nga salaire yokk nañ ko vingt neuf milliards la annuel boo xamante ni mooy li nga xamante ni mooy augmentation si mhm. salaire yi mais tey bu fekkee dañ ko augmenter mais au finish ku nekk am ci si sa salaire yokkute deux mille cinq cent wala cinq mille doo ko yëg la politique est hmm? Mm-hmm. les les les actions sont là mm-hmm. mais ñu jéem a pérenniser action yi ba nga xamante ni ku ci nekk di nga ko yëg et mm-hmm. problème boobu moom si ni mu ko jàngee ça doit se résoudre à la base parce que projet yu mag yi nga xamante ni mu ngi am c'est des projet mais ça profite à ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci entreprise yi ça profite parce que tey boo gisee Sénégal en 2013 mu ngi def euh, PIB boo xam ni c'est 7330 milliards maanaam bu doon Sénégal entreprise loolu mooy bénéfice su Sénégal mais boo xoolee bénéfice su Sénégal boobu noonu demee ci entreprise yu mag yu mel ni Sonatel seen bénéfice wala cimenterie yu mag yi da gis ne li ci des bëriwul wala góorgóorlu bi nga xamante ne mu ngi nekk ci biir këram moom li mu ci contribuer bëriwul mhm. donc ñoom économistes yi ñoom dañuy yokk xel rek ah xel du doy ñoom dañ ni que il faudrait que euh, Euh, PSE bi nga xamante ni mooy référentiel politique et économique wu Sénégal. Mhm. ba fii ak 2018 voire 2023. il mhm. faudrait ñu associer si ñi nga xamante ni ñoo nekk à la base. parce que Pape Cheikh chaque fois da koy wax nee ñun waxuñu ay ñi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi egg ci kaw ñu ne ñuy waxante ay ñi nga xamante ni ñoo nekk si suuf. te pour ñooñu mun si jariñu. dëgg la loolu maa ko waxoon. waaw maa ko wax man mi maa ko def ma ne loi sax boo koy xool. Mhm. bu koy créé ñoo ñoo gën a tax sax ñuy wax ko donc pour rek yokk si li nga xamante ni moom lool la loolu la économistes yi gis donc il faudrait que PSE bi mhm. ak programme yi ñuy développé mu nekk ñoo xamante ni day profité ki nga xam ni mooy pêcheur bi parce que ñoom nee nañ gisuñu si pêche bu bëri. Mhm. mooy ki nga xamante ni feccikat la wala mbër la parce que quoi qu'on en dise dañoo représenter une très grande partie de la population sénégalaise que le problème ñooñu dañuy gis seen bopp. on peut man man en fait c'est que je rajoute par rapport. dëgg la waaw day rajouté rek. <laughs> rajouté rek mu wuti ndox bu tàng. li li ñuy wax toujours euh, ci. Euh, toujours dans le cadre hein, je pense qu'aujourd'hui tamit quand même il faut il y a des initiatives à saluer. Hein. donc euh, faut pas non plus aussi que ñu ne voilà on attend de lui. qu'il nous ah. donne mille francs ah donc ku la jox nee nañu ku la jox ndékki. su la diggee reer xaar ko. je pense que s'il mhm. commence avec vingt cinq mille francs mhm. non plus il faut pas enconger des des des cahiers là-dessus. je pense que rien que l'initiative est à saluer. exact. et que demain. Euh, que ndànk faut faut mm-hmm. pas oublier aussi. gën euh, a Pape Ngagne mu mm-hmm. sonn benn benn secteur moom mooy. voilà kon mu nekkoon cette émission faram fàccee <laughs> ñoo sonn sonn. ku ne dama mel ni euh, dama mel ni tey euh, benn ñu ñu ngi ñu ngi tàmbali. ah ñu ngi teg ay ay ay ay voilà initiative yu baax. wallaay Pape Ngagne et que je pense que tamit ñun benn côté. dëgg la. su ñuy xool ne il a fait des efforts. c'est à mhm. nous aussi d'une part d'être patient. ça c'est très important. soxna Ngone soxna Ngone Ngom beneen bi ñaar. waaw jërëjëf Pape liggéey yi. ñaar ñett état mhm. dafay créer. juste kii bi lay le cadre ngay condition lay créé mais non il nous a donné vingt soxna waa Ngom mm-hmm. non représentante jigéen yi man man moom ci xale yi ah, man ci xale yi laa gis parce que man moom c'est une grande histoire d'amour xale yi ak man mm-hmm. te y a longtemps maa ngi dégg ni ci côté ministère de la santé mm-hmm. dañu def léegi pour jàppale ñi nga xamante ne mooy di tout tànk yi de zéro à cinq ans léegi ah ñoom duñu fayati donc te xam nga avant bi fi góor gi nekkee woon si euh, président Abdoulaye Wade moom il l'avait fait mais ci côté Macky mooy plan mm-hmm. Sésame bi mm. donc aussi bu fekkeen jàppale nañ ñenn ñoo xamante ne mooy bébé yi tout tànk ba cinq ans mm-hmm. boo demee doo fay dara moi aussi je me dis que c'est quelque chose à saluer non non jeex na jërëjëf mu nekkoon faram fàcce euh, li ci réew mi jërëjëf soxna Ngoné Ngom di gërëm bu baax euh, Alaaji Assane gay ak Pape Ngagne ñu ngi leen di gërëm bu baax yow yaay Ngoné moom mooy soxna ah, Ngoné yow kay yaay Astou Diop cubu cubu waaw mais Pape Cheikh am benn affaire boo xamante ni Barack Obama daf ko wax. waaw mu laaj la ci sa avis. parce que moom euh, temps yële dañ ko wax. si problématique <laughs> ah, ah, ah man de lu jëm ci lu jëm ci loxo loxo buy ñëw buy dellu rek. loolu loolu nga ma war a laaj. <laughs> parce que ba le passé dañ ko laaj ni lan mooy problème mu pays mm. africain yi. Mm-hmm. moom mu ne euh, la bonne gouvernance mm-hmm. est l'ingrédient qui manque à la cuisine des pays mm-hmm. africains. Ah donc moom loolu la wax ma xalaat ma wax la nag yow loolu loo sax mooy. lan ci man dégguma dégguma la parce que xam nga euh, mënuma laa dégg daal déggu te dégg ma sax nga wax. nga ni ficc euh, ko jox ma sa nopp bu baax bi. ficc <laughs> euh, <laughs> moom dafa ni. Uh-huh. bonne gouvernance mm-hmm. mooy ingrédient bi nga xamante ni. maanaam sàppali bi nga xamante ni. moo manqué. ci <laughs> moo manqué ci waañu. Euh, pays africain yi. ndeysaan waaw moom loolu la wax. te je mm. pense que nag euh, suñu président de la république Macky Sall. noonu la bëgg très bien noonu la ko bëggee waaye Barack Obama Macky Sall dama bëgg nga naan président. voilà voilà donc suñu président de la république république Macky Sall je pense qu'il l'a très bien compris mm. moo tax nag mu ñëw indi doxalin bu bees indi ay réformes yu bees. pour nguur gu bees. jërëjëf voilà mun naa tëj sama yu baax. waaw kay tëjul sama <laughs> merci Abouba. merci waay jërëjëf ah, Pape Ngagne kon xam naa euh, faram fàcce jeex na. kon ñu jox leen dig daje <laughs> incha allah. ci beneen bés pour beneen émission. nan la ñu ko waxee ñaar ci ay bés. ñaar ci ay bés ñu jox leen dig ci ay bés wala yeneen ci ay bés. mooy semaine prochaine. voilà